élections danoo ñëwoon pour waxtaan ak sénégalais yi proposer leen suñu programme si wàllum euh, liggéey parce que danoo gëm ne tey sénégalais seen problème yu bëri ñàkk liggéey bee tax te ñoo gis xale yi di jël bato yi ak gaal yi du ma sa bateau di njëg gaal yi pour dem bitim réew pour ut liggéey loolu yëpp ndax ñàkk euh, am yaakaar ne dëkk bi mën nga asi tekki am nga liggéey ñun nag danoo ñëw proposer ne ñun lii mooy suñu yéene lii moo tax dinañ proposer sénégalais lii suñ ko defee incha allah ñu ci bëri gis am liggéey loolu fi ñu tey te lu ñu proposer mooy déjà nañ fexee jiital sénégalais si lépp parce que tey suñu réew la réew boo xam ne tey tubaab yeek moom ak libanais yi mais noonu fexe lépp lu ñu def ñu jiital si sénégalais yi jàppale leen mu nekk si formation si financement mu nekk si projet public wala gestion des sociétés sénégalaises ñu jiital Sénégal loolu benn la noonu fexe tamit euh, sénégalais ñu former leen financer leen et pour terminer nag noonu fexe tamit xale xale dès le base